alwafi Cheikh Ibrahima Fall laamu baabul muridin mbokk yi ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dellu si waat nañ ci émission yi ñu leen baaxoo amalal mu di yóbbalu koor ngeen ci ànd ak seen mbokk Abou Bakrin Fall di ci ànd ak Xidma TV seen site internet boobu nga xam ne mboolem luy service ul islam daf ciy baywaar ci kilifa yeeg ñi ñu ñi seq liggey bi yëpp ñuy ñaan ak ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal leen ci tawfiq ak taysir ba li ñu bëggee liggéeyal l'islam ñu mane ko niñ ko bëggee loolu yomb na yàlla yàlla na nu yomb incha allah kon dañu ñu di ànd ak yéen ci émission yi ñu leen defal ci koor gi tey di fukki fan ak juróom ci shahru ramadan al mubarak ñuy ñaan yàlla liñ ci woor liñ ciy jaamu yàlla yàlla na ko nangu ci ni mu toll fulal ñu ko waaw ndax it euh, moom moo ni koor moom man maa koy fayal sama bopp te am na buntu ci aljanna bu ñoo wax rayyaan laa yadxuluhu illa moom rayyaan nag yàlla na suñu boroom defal ñu euh, ñu ñu ràyyi ràyyi jëm fa incha allah mën na ko am na ko yàlla ñu ko defal kon tey ñu indi tem bu am solo bu mat a jàngat ñu gaaral ko mbokki taalibe yi gaaral ko àdduna ngir ñu bokk ko àndandoo ko jàngatandoo ko thème bi nag di question buy laajte li muy laaj mooy ak kii la souveraineté souveraineté kan mooy borom mais ban souveraineté bu ñu indee version arab bi di nga xam kan lañ bëgg wax limanil mulk fi dalikal yawm boo sukkandikoo ci ay règle tajwid woné limanil mulk al yawma da nga da nga wara gaaw wax ni lillahi al-wahid al qahhar lolu ulama u tajwid xeyna inshallah gaay allah yi ñu ci xam duñ duñu ci jëm xeyna duñu ci jëm limanil mulk al yawma lillahi al-wahid al qahhar sañu ni limanil mulk al yawma rek taxaw fofa xëy na moom sañ na li ci ñenn ci nga xam dañuy nettali ci ni buy wax loola dina bàkk junni at ni li ma niil mulku yawm li ma niil mulku di ko wax di ko wax di ko wax ba yàgg kenn du ko tontu ndax booba ñëpp euh, kenn amatul moom rek am waaw ci amum googee nga xam ne moo jiitu amuk azali la abadi Sëriñ Tuubaa wax na ko wa huwa qadimun maa lahu bidaaya wa du baqaa'in maa lahu nihaaya وواحد ما إن له من ثاني ولم يزل جل عظيم الثاني قدرة إرادة له وجبت اعبدنه ولتجل له علم حياة وسمع وبصر كلام وجبت لذي البشر وكون ربنا تعالى قادرا حيا مريدا عالما وهبا نعم ko وخيبا ba ca شاء الله مي allah muy tasawudu sixaar muy téere bu am solo buñ war di mën a jàngat di ko di ko bàyyi xel ndax tasawudu sixaar ilaa jinaanillahi di leen xaar muy yo wommat xale yi mag ñëpp yóbbu leen ci yoonu aljanna yoonu aljanna nag mooy ak njub rek mooy ak njub kon li ma nil mulkul yawma lillahi alwahidil qahaar ni mu moome nag fële muy le jugement dernier noonu la moome fii ndax buy jàng fatiha dañuy wax bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin maliki yawmi ddin mel ni maliki yawmi ddin li mu li muy tekki rek ci ci prime zahir mooy le souverain des jours de jugement dernier le souverain des jours de jugement dernier donc kon maanaam bis bu mujj ba suñ borom moo ko moom loolu nag bu mu tax nga jàpp ni moomul fii waaw moom moom fépp alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin mbooleem univers yi c'est le seigneur de tous les univers kon da ngay xam ni ni mu moomee fee noonu la moomee fii léegi nag li ñu war a dellu jàngat ci loolu mooy comme moom moom fii moom fële lan mooy suñu devoir ak lan mooy suñu àq sunu sunu yelleef boog astaghfirullah lan mooy sunu àq ci ñu war cee bàyyi xel mooy an na'budahu wala nushrika bihi shay'an comme yàlla dogal na ñun moo ñu moom moom fii ñu ne moom fa ñu jëm loolu liy xel mooy dellu ci moom ñoom dellu ci moom kese waaw ndax ووتا كربدا ووتا وني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم مجيبا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا واي واي يين نيغا خامي ني يين لي جان دو ليفر يين وا اهل الكتاب مو خام زيف آه، لا مو خام لومو دون مو خام كريتيان مو خام لومو دون نيو لين ني اندالو جانغاتاندو benn téere boo xam ne ci baat boo xam ne ñun ak yéen ñoo ci yam ban baat la laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu wa lahu alhamd yuxyi wa yumiitu wa huwa ala kulli cheyin qadir comme nag moom moom lépp moom fépp mboolem mboolem sifaat yi mboolem attribut yi mboolem noo yi ngar mboolem pouvoir yi kooku li war suñ digganteek moom moo ñu jaamu ko ndax nit ci ni ko yàlla binde munta yëngal fepp suuf te yàlla àndu ci loo mën di def ci kaw suuf loxob suñ borom subhanahu wa taala daf cee dugg nga mën cee am résultat ba ci bokk laa yastatiu l insaan taxrika darratin min alturabi illa bi idnihi almusbaq il faut mu jox la ordre que nga mën def li nga bëgg def quoi qu'il en soit lu man di doon ci aduna lu man di doon ci aduna nit ki mënu ko aboutir mukk lu dul ni dafa consulter suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ci ndigal mu dog ko mën def no xam ndigal lu teew la wala ndigal lu jitu won ak lu man di doon ndax moy maaliki yow mi diin mooy maaliki yow waaw donc kon nañ bàyyi xel ni moom moom moom jamono ji li tax nag ñu indi thème bi mooy <clears throat> yàlla dafay may nit nguur jël lépp jox ko lu ci ëpp wala jël lu ëpp ëpp jox ko lu baree baree baree dafay dem ba jàpp ni maanaam jamono ji moo ko téye comme comme comme niñ koy waxee ramu nit nag ni ko jamono ji yàkku téye xëy na sax loolu kaf laa gi moom mi ngay waxal sax xam nañu téyewul jamono ji waaw jamono ji moom kenn ko moom te moo ko téye di ko doxal loolu xëy na façon de parler la waxin la ak bëgg a neexal gi demee noonu waaye euh, kenn su dëgg dëgg téye jamono ji suñ borom moom moo téye jamono ji ak lu man di xel euh, donte nag euh, mën na koo jël dénk ko nit loolu it mën naa nekk ci boroom xam-xam yi ñi nga xam ne ñoo xam wàllu googa di bu baax sëriñ Mamour di ko jox wàccuwaayam lu bare bare bari sëriñ Mamour Nguer ñu ngi koy ziare bu baax di ko jox wàccuwaayam lu bare bare ba di ñaan yàlla tawfiq ak taysiir di ñaanal mbooleem kilifa yëpp yëpp yëpp macha allah mais ci am loo xam ne suñ borom moo ko tëyal boppam kenn moomu ko waaw yaa jamono ji euh, bu ñu la ko waxee noonu rek euh, maanaam na ko jàppee kaf waaye waxtu woo jàppee ni yaa jamono ji borom jamono jëlee la fi ba pare di doxal jamono ak lu man di xew boo jàppee ni yaa téye jamono ji rek moom dina fexee nu mu nu mu fexee ba yebal waa jamono ñu jëlee la jamono ba pare jamono di wëy nga nag euh, buñ buñ la ko waxee rek nga xam ne mu ngoog moo tax nit suñ boroom subhanahu wa taala dina sàkk ci nguuram jox ko waaye bu sàkkee ci nguuram jox ko na ci demee xel ni mu ci demee xel mooy président ba dafa falu dem ci benn góor gu baax ni ko ah fan yii de man lañ élire élire nañ ma ma war a jiite Sénégal exemple war nañ ma war a jiite Sénégal waaye boroom xam-xam bi daf ko wax xekk ma bu am solo bu mat a bàyyi xel nag surtout suñu état yi ak suñu njiit yi ñu bàyyi ci xel daf ko wax ni ko law daama li ma qablak ma wasala ilayk wa sa yantaqilu mink ila gayrik maanaam nguur gii nga ñëw fii ni ma dañ la ko dénk dénk la réew mi bu resté woon ci sa président ki nga xam ni moo fi jóge nga toog fi bu fekkoon ni moom jógewu fi du mës a ñëw ci yow kon nag bàyyi ni bis dina jóge ci yow jëm ci keneen kon pouvoir bu éphémère la boo xam ne ci ay ay mandat dong la tegu mandat yi mën na nekk cinq ans mën na nekk sept ans mën na nekk selon ci pays seen régime ak euh, seen seen seen façon Euh, de de de gérer kenn ku ci c'est façon de gouvernance ci lay aju mais ci mi nga ni 40 euh, ans ñu président euh, Cameroun 40 ans Euh, suñu cousin di suñu xarit di suñu lépp ñu toog ci di ci waxtaan waaw mu wax ma lu mel noonu waaye nguur nit lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg ci jamono bii ñu toll mën naa bañ a weesu weesu téeméer téeméer sax dañ ko waxee noonu waaye euh, ngir euh, mu gën a am ixtiyaat yi mu gën a globalisé waaye mën na koo sax bañ a jege nag te téeméeri at ci ñun la bari nañ ko fàttaliku waaye bariwul ci suñu borom subhanahu wa taala ñu bayyi xel ni moomuñu ko kon dañu ko dénk li nga am ci aduna lu di doon ngu pouvoir la daraja la alal la lepp dañ la ko denk ta ki la ko denk muy malik yow di muy manam ñu revenir ci tammi mana limanil mulku ma nil mulku fi daalikal yow waaye maalik yow ba pare momat jamono bi nga nek kon ba pare di alhamdulillahi rabbil alamin rabbul alamin borom bindeef yëpp borom jamono yëpp borom àdduna yëpp léegi nag kooku bu daggee ci nguuram jox la war na am noo ci doxee doxin woo xam ne bu ci doxee doxinu maa ko mu mel ni ku ñu dénk rek nga commencé jooy dëgg dëgg fi mu jooy kele dégg nag nangu ab xaalisam ma ngay bëgg jot moom waaw dénk la rek nga commencé jooy <laughs> sëñ Basiiru Mbow bu sëñ Maas Mbow ci kuur ñu ngi koy ziar yal moom laay waxtaanal démb mu mu mu leeral ma loolu ni góor gi dañoo ñëw dénk ko xaalis rek mu commencé di jooy di jooy jooy ak cant daa muy jooy jooy cant <laughs> bu ko waa ji ni ah kon nag nangu xaalis mi ngi bëgg a jot sëkk nag comme eh, jooy ngi ci am rek tabarkaat la xam naa xëy na am na leneen lu mu ca namm lu denc ko ba borom ñoom mu joxaat ko ko léegi nag suñ nguur yi dafay dafay mel noonu parfois da nga ciy gis euh, président wala wala wala wala wala roi boo xam ni dafay jàpp ni liñ ko jox moom moo ko moom te daf ci sax rek di dem loolu ku jàng histoire euh, na ak Moussa war koo daw bu baax a baax a baax a ku ne xam na ni Firawna euh, li taxoon mu demoon ba woote uluhiya waxu waxam yu juréy jooju muy ana rabbukumul aala ak it maa alimtu lakum min ilahin gayri ñaari waxam yu rëy yooyu dafa am lu ko mayoon mooy pouvoir bi ko suñ borom joxoon mu rëy xam nga koo xam ne lim dund kenn xamul nu mu toll dund na lu baree baree baree bare ëppal na téeméeri at di dem dama xamul lim bi dama bëgg dama bëgguma di wax chiffre bu ma bu ma maîtriser wul waaye nguur yi fi nekk yépp ci jamono ji فرعون دون الوون سين مرام تي تي غود فان كارتانو جيم كارتانو فيزيك لم تي يورون كين خامول لوم تول لول نك بوسي وون مو واخ واخام جو بيو جاجو كوكاتيكو جا ا امام بي دون ديفال ديفال تفسير تي تفسير القران تي يكرنا مجوم الكور 2014 تي كاولاخ تي اسلم سارا بو واخان با اكسي فرعون دا فاي انه تغى نام كوي انه نك موم داي كوكاتيكونا تغا بيونا تا نك واخ دغ يال دا فا كوكاتيكو دا فا كوكاتيكو دا فا جوري جيني يين وا يين وا مصر يين بنو اسرائيل ما علمت لكم من اله غيري خمالوما لين يالا جول مان لولو نك دي لو ري مو انا ربكم الاعلى ماي سين بور بي گنا ماغ nga xamni ci netali neenu iblis dafa dar ñam ak limi muy bon de dafa dar gémmiñam ñam niko ah li nga wax ak na de melni dafa duggal mom ci ruq ci ruqum ñuqutoom ni ko li nga wax ni rëy de niko kon mo ko bok mu ah jaru ko nak jaru ko de way way li nga wax rëy de nga xamni gis nga eh, iblis ni nimi ni ni muy dugalee nit daf koy duggal ba pare dess ca mu ne ko nga wax ni mom reyna parce que iblis nak, limi bon bon bon bon bon xëy sama lire sori wul sama xam-xam wul mais dégg guñu fu mu ne man maay seen borom bi gën a màgg firaaw nag bi mu waxee loolu moom iblis mi nga xam ni moom lañ considéré ne que ni moo gën a bon tiit na de tiit na ba xaw a jaaxle waaye ñaari wax yooyu suñu borom condamné ko ci fa axadahu llahu nakala al axirata wal ula wax ju njëkk ja ak mujj anna rabbakum al aala ma alimtu lakum min ilahin gayri loolu liñ ci bëgg a leeral rek mooy nguur yaatu ak gu màgg moo taxoon mu wax li muy wax xam ne li amoon ci fortune li mu amoon ci ci ci ci alal am ko ci soldaar am ko ci eh, leneen ak leneen du jeex loolu nag ku ci jàngat xam ni li la suñ borom may du sax Firawna li mu fi yàgg yàgg yàgg mujj na fi jóge mujj na fi jóge waaw suñ boroom nag di bëgg ñuy def fàttali ci moom xekk ma boobu moo tax mu bàyyi ko fi boo demee misra al arabia Euh, touristes yi chaque jour ñong fay dem di ko visiter ba ni ni ni ni koram ñu ngi mu ngi ñu denc kenn suulu ko euh, ñu wax ni sax en 1981 demoon na ba baram bi di xawa am melni dafa xawa di bëgg yaqku buko ñu yobbu ko France keroog escorte biñ ko defal escorte présidentielle ñu duggal ko biir France defaraat baram bi wat ko Égypte lolu suñ borom niko dama ko def ngir ñu conserver sa yaram Euh, galaase ko nit ñi di ko xool ba ku ko xool daal di jàngat ci yow mais lan moo tee kon ñu mën cee jàngat ku ci bëgg a jàngat mën nga dem ba Égypte wala nga toog euh, ci téléphone yi am na sax ñu la koy wan nga xam ni kii lim fi nekkee woon ba tey jii may wax ak yow nii ku ko jàng gis ko mi ngi ci alxuraan karim ñu bind noir sur blanc ba pare jëmm ji mi ngi fi ba léegi daan tyranniser waa banu Israël di nangu seen alal lu ne mu ñu def mu def loo leen ko waaw yudabihu abnaahum wa yastaxyi nisaahum mitir bu ne mu tegal leen ko ba seydina Moussa alayhi salaatu wasalaam ñëw nga xam ni lu ne def def leen ko nangu seen alal yi waaye nag yàlla ci xekmaam ci xereñam fi ni dem na ba li mu nangu woon ci égyptiens yi ci ci banu Israël li mu nangu woon ci moom dafa mel ni suñu borom xekma bi tax mu conserve conservé ko moom moom kooram rek dép dépouillam mi ngi koy. ñu ngi ko waa Misra ñu ngi ciy gañewaat lu ko ëpp parce que pour nga dugg fi mu nekk pour euh, xool ko ci euh, dépense beaucoup d'argent pour mën a visité fi nga xamante ni fa lañ conservé na kon dafa mel ni lim doon nangu ci waa banu Israël ñëpp ci Égypte gi ci Misra ñu ngi koy dugalaat ci euh, keesu réew mi xam ni loolu suñu borom rekk ko man loolu nag mu junj ko ci biir histoire bi du ñu ne ko ci ndax dani ñun ñoo nangu keri banu israila euh, donu loko julit ni donu loko ñi top yonent yalla musa wa awrathnaha khawman akharin fenen mu wax ni كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وأورثناها قوما آخرين وإنك فما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا منظرين كون لولو لو متى باي خلا دي دلوات دي خولات إسواري من نون خمني أدنى yàlla moo ko moom bu la fi dara jay ba nga jàpp ni am na am am am nga fi lu tee yàlla subhanahu wa taala mën la fee jëlee waxtu boo fi bëggee jóg léegi nag yooyu dafay am lu koy sabab nit ki waxtu bu euh, jàppee loolu dafay dafay nax bopp yooyu dafa am yu koy sabab ñu mën koo tënk ci ci ci juróom xëy na mooy adamu shuur حضور الله في كل rahim maanaam présence bi nga xamee ne موم لا سوني بروم سوني بروم بريزانتي وو تي سا كانام سا جينا sa لول نياك نياك ييك ñàkk بوبو داي boobu nga jàpp ni yow yaa yor lépp ba ci dess moy euh manam nit ki espérer bi mi espérer manam nek fi rek di dund éternellement lolou moy tax mu jàpp ni lépp mom muy tamani tamanil khulud ba ca des mooy naqsul àqli ñàkk xel ñàkk xel yow boo xalaatee ni maanaam deux mille euh, l'an deux mille l'an deux mille boo xalaatee ni juddu woo woon parce que xam nga fi say at commencé boo xalaatee l'an deux mille juddu woo woon nga ñëw ba l'an deux mille nga juddu ñëw ba tey deux mille vingt trois euh, jàpp ni yow doo dee parce que nit jàpp ni doo dee ñëpp xam ne dañuy dee. mais jëf-jëfinu ku xalaat ni doo faatu loolu la ñuy wax te yow avant l'an 2000 yow amoo woon l'an 2000 nga am 2023 nga jàpp ni yow euh, ma nga fee nekk rek di sax di di wéy di fawe suñu borom subhanahu wa taala lu la neex nga def ko loolu it gàtt xel la loolu mooy tax ba boo ko xalaatee la nga yor euh, di ko jiite moo xam lu mën doon bu ñu joxoon àdduna yëpp nga teg ko sa loxo waroo xalaat ni fii yaa ko moom waaw la tee xalaat ñi nga xam ni euh, dem nañ ci suñu borom subhanahu wa taala te ñoo la dàqoon dund ëppale la ko gën laa bari pouvoir gën laa bari lépp te dem nañ tey ba ci des mooy al iddiaa bi ittilaahil xëy bi ñu ci muy point bu am solo ñi nga xam ne dañuy woote woo ni dañoo xam xëy bu dañoo xam euh, li nga xamee ni si nii moom la suñu borom nëbbu ay ay mbiram lañ mën du ci lañ nëbbu ca monde invisible ñi nga xam ne dañuy woote woo xam nañ ko dañuy jàpp ni ñoom moom àdduna bi lu ñëw rek ñu bëgg a wax euh, mbir à l'avance njëkk muy ñëw ñu bëgg koo wax nangam nangam ba mu yóbbu leen ci magique magique noire yoo xamee ni si nii di wax euh, loo xam ni xamoo ci dara loolu Sénégal daanaka ni du fi jeex loolu it ñàkk xam kan mooy Malick yow mi diin parce que match bi nga naan di way gañe làmb ji nga naan di way daan suba day day day day day nangam nii lay mel climat bi nii lay mel waxuma nag météorologie lii nga naan nii lay ñi nga xamee ne si ni xëy na dañ dañ koy wax ngir bëgg ñu yëkkati leen yooyu moo tax may wax ndax météorologie euh, science la nit ñi dañ koy jàng waaw peut-être xëy na ñu juum parfois mais science la bu tegu ci lu ci leer ñu ñu koy jàng mais loo xamee ne si nii da nga koo teg rek ci ak njabar ak yooyu demee noonu loolu problème la cause yi tax euh, nit ki jàpp ni moomu àdduna bi te fekk na moomu dara ba ca des mooy euh, damaanul janna maanaam koo xam ne teguwul ci diine moom li ko war ci diine sax defu ko mu taxaw ak nit ñi naan leen àjjana maa moom moom astafurlah àjjana euh, laa leen di dugal rek nangam naa yow koo xam ne say farata defoo ko euh, euh, nga war def defoo ko ci sa diggante ak sa borom lépp defoo ko ngay dig nit ñi àjjana ku am lu nekk a ngi fi lu ne lu ne moo tax yooyu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ni waxtu wi xaw na xaw na xat te liñ bëggoon a wax lépp sax mënuñu ko wax waaye dañ yemandi foofu rek ba beneen yoon incha allah ñu gën koo yaatal in uridu ila al islaha ma stataat